xam naa ne dinaa demande Daour maa ngi ziar mën naa ñëw jërëjëf Daour maa ngi lay ziar foog ma jël la Daour Daour maa ngi lay ziar ñu ngi lay fay sa teewaay ndaw ñi hmm. mbooloo bi wuy si Ousmane hmm. lan la lii dogalub suñu borom la te képp ku ko nangu rek sa xol dina dal sam xel dina neex ndax li ko waral Seydina Ousmane Sonko mu sell mi suñu borom moo ko bind ba pare bindal ko waa Sénégal ba pare boole ko ak Afrique ak àdduna bi yëpp ñu war koo jariñoo mu doon consommé local mu doon consommé national ak international Ousmane njariñam ak gis-gisam ci Sénégal kessé motax tax bu mu 10 h et quelques mbir mu wara dem ba 19 h ba 20 h Sénégalais yi ñëw 10 h di buuxante place lekkunu naanunu boole koog di joxe seenu xaliss kenen kuko jémon kudul Seyna Ousmane Sonko mu sell mi say mbir du dem. ku jéggi nénen gaay bay nañ. waaye tey li ma fi gis day gën a confirmer ne ndaw ñi ànd ak nañ Ousmane. sëñ bi ñooñu dund ko jë ñoo ko doon topp barki démb di ko maral ay tànkam ban demee ba bëgg a pàccoo réew mi te mbir mi pàccoo taxu koo jóg liggéey jub jubal jubbanti moo tax ñu wëlbati ku bëgg a beru di sànni ay kon doxal taxu leen a jóg. assemblée nationale majorité ngeen nar a demee bii ngeen ne da ngeen demee seen bannière ndax dina yomb. day tey lay gën a yomb ndax gone yi porte projet bi bëgguñu sax am càmm langal ndax dañuy bañ dara rax ko dañu bëgg ñu deme ko naturel ñu xam ne Pastef lii la am doxe dooleem ci fulla ak ngor ak bëgg gi sénégalais yi am ak bëgg gunge projet bi. Pape ragal moo tax ngeen ñëw arena. ku gaaw a jooy desu ko tontu ci mbooloo dañuy bàyyi ba dajeeg moom Djibril jooykat la. Bougane Gueye nee na moom mooy le chef de l'opposition. Bougane day xulli ko te bi daa rëy dañ ko woon nguur gi te mujj ci jot moo tax dootul waxe sago. Barthélemy nee na manipuler ngeen mën. moo nu Amadou Ba nee na la jiñ amul. tonton Amadou ba day soob rek moom moo la gën a xam ne am na. Macky nee dina ñëw battu si campagne. Sall ngaari lam toroo de ñi moo fay jaar am xelam daju ci. Europe a yokk li mu lebal sénégalais yi la leen di yërëm di leen dimbali bañ a njaboot gi gone du fàtte tam xelam du bàyyi te li lebal gone ci réew mi daa rafetul moo tax fu mu gaay fekk fa da ngeen woote Sénégal 2050 ku jege nee na xaar ba 5 ba 2050 ngir réew mi mën

ku ñëmé na def topando bi bari na lol waye dafa am luñu topando am luñu bayyi topando bi nañ ci boole di wotay kañot topando bi nañ ci boole di wotay estat ku ñëmé na def affaire baa ngi nii affaire bi amutu sar yow la nit ñi andal senes bi bayyi nañ président Ousmane Sonko woowal senes bi ma nga xol fi ku joxewul 1000 francs do fi dugg ku joxewul 2000 do fi dugg ku joxewul 1 million do fi dugg neexalun kenn kon gars yi nañ nañ woote toppandoo bi nañ ciy boole di woote. mais Lamine si wàllum politique li ma doon gis sandwich li ma dee gis mooy t-shirt li mooy boo demee ñëw ñu jox la xaalis yéen ngeen woote fu sori ba pare ngeen ne bu nit ji ñëw nañ paas lan mooy différence bi. loolu mooy rupture rupture la rupture ñun duñ ay politiciens système bi système bi moom lañ dàq mu jóge fi. comme dañ dàq mu système bi mu jógee nag lépp loo xam ne système bi da ko doon def ci lu baaxul ñun du ñu ko def ku ne xam na ne loolu ger la neexal nit 110 wala fay ko juróomi téeméer gaareel ko ab kaar fayal ko mu dem ak ñëw ñun doxuñ ci yooyu président Ousmane Sonko xanaa xamoo gars yi dañ ne kaa leen ma jiite leen président Ousmane Sonko ñun ñoo ne ko yaa ñuy jiite. moo waral lu mu woo ci lii ñu wuyu ko parce que lii xam nañ fi mu koy def parce que li mu def nii histoire ci boppam da koy jàpp mooy premier homme politique bi nga xamante si nii moo njëkk a woote kañot ñu kañotal ko ba mu àgg pale team caisse noire le président Bassirou Diomaye Faye team caisse noire mu ne du ma xaalisu askan wi du ma campagne oto yi Sénégal yi gasoil bi Sénégal la ko moom du ma ko campagne da ngeen di def levée de fonds ñu daje ci stade bi ngeen jox ma ma dem campagne su defoon leneen lu lii kon ñu rus le président Ousmane Sonko Sénégal gépp dañ ko war a delloo njukkal ku mel ne moom mësta am moo tax jeunesse bi yaakaar ko loolu mooy dëgg loolu képp koo xam ne naqaru na la di nga dee barke alquranu karim gars yi ci aw naqar la ñuy dee dañuy naqar lu ba dee parce que lii dogalub yàlla la nanu ko nangu te bàyyi coxor gi coxor baaxul yàlla ci boppam moo ànd ak président Ousmane Sonko moo ko faral nañ ñoo xam te dëgg lii mësoo koo gis mësta am ku man na def ñoom ku ci woote cib saal ne dagg bee kenn du dugg deux cent francs buñ ko wootee fii duñ gis kenn jërëjëf jërëjëf dama koy jaajëfal baax a baax ñu wane li nga xam ne moo nekk da xew jëriñ ma ne ma xool saako xaalis bi ma xool en tout xam naa ne maa ngi lay ziar ak jaaykatu bi yéen fi ñu toll nii ñaata bloc nga yor yaay maa ngi lay ziar. am nga xaw sax bloc yi moom instant yii moom bëri na quoi macha allah. ñaata bloc nga jaay jënd bu baax a baax. yaa ngi jënd bu baax a baax bloc yi sax fi ñu toll nii. li nga jaayagum mbir yi dina fees na quoi saag bi fees na. te gars yi yóbbu nañu yi quoi ñu ngi sant yàlla bu baax a baax lépp rek si pros waaw nuñ la tànnee ba nga jaay gaaw wóolu nañ la de. ah jàppale projet ñun ñëpp ñu si projet bi di liggéey quoi liggéey rek. waaye projet bi rek projet bi rek moo ñu ko jaral beneen vol kenn fay ñu kenn defuñu dara projet bi rek jaajëf. en tout cas maa ngi koy jaajëfal boo leen xoolee jamono gi nga xam ne moom la ñu wax ak yéen damay demandé. Serigne Sonko mu sell mi. lan ngay wax kese ku sell gi moo woote. tey ñëppay ñëw incha